bon boo xoolee lii match de poule la quoi dernier kon un point dañuy nekk premier kon donc moo tax ñu tourné suñu effectif ñu mën a xoolaat euh, noppal ñenn ñi pour ñu huitième de finale mën a préparer huitième de finale parce que match yi boo xoolee amul temps da ngay football tey noppi ko benn fan joué kon donc joueurs yi dañuy chargé kon da nga am benn effectif boo xam ne ni bon c'est un peu nombreux moo tax ñu tourné effectif bi tey pour indi ñi nga xam ne c'était les suppléants quoi les remplaçants. nan ngeen di bon sereinement sereinement parce que euh, football moom comme ni nga wax huitième de finale phase directe la élimination directe la kon donc il faut être prudent pour laquelle moo tax tey ñu indi suñu suñu suñu pour ñoom tam ñu am temps de jeu ñu mën reposer ñi nga xam ne ñooy titulaire yi. lan comme euh, parce que ñun match bu nekk ak ñu koy abordé puisque ñun dañu ñëwoon ay novices lañu ci ci tournoi bi ay outsiders lañu. mais l'appétit vient en mangeant. match bu nekk ni ñu koy jëlee comme pré euh, euh, présentement dugg nañ ci phase élimination directe amatul calcul match da ngay ñëw quatre vingt dix minutes soit ngeen dem tiro bi kon donc dañuy préparé en conséquence match bi ñuy ñëw ñu ñëw indi équipe boo xam ne dafay mën a ñëw indi répondant mën a gagné match bi match waaw match bi dugg nañ ci ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi parce que jaloore dafa ñëw tay taxaw premier mi parce que match bi premier mi-temps bi tey laa ko waroon résumé premier mi-temps bi yëpp seen temps lañ joué ñun suñ bool bi jàpp benn yoon bal bu danger am nañ ay occasion tamit raté ko am nañ ay occasion yu bari parce que jaloole joué wut premier mi léegi nag premier mi-temps lañ ko joué deuxième mi-temps bi ñëwee tamit indi na tuuti ay jafe-jafe ci problème mu match boo xam ne qualification lañ parce que ñun dañoo bëggoon gagné match bi tey. waaw loolu tamit ci football la bokk waa attaquant bi am occasion di ko raté moo gën bu ko amul ndax kooku préparé na boppam waaye football dafa doon loo xam ne toujours rek ci ci concentration la book waaye bu beneen yoone loolu yëpp dinañ ci gën a liggéey ba bu amee occasion dinañ ko mën a dugal incha allah mais waaw kontaan naa ci kontaan naa ci parce que maa jël deuxième waaw maa jël deuxième waaw am naa benn victoire ñaari niil waaw équipe bi Dakar bi dafa am benn defet benn niil benn victoire ba pare ñun ay xale lañ yor soo gisee ni ñuy jouer nga xam ne ñun ay xale lañ yor xale yi ndaw lañ indi fii taaj leen pour ñu jouer phase nationale parce que football dafa toll foofu moo tax gars yi buñ leen yenee suñ rythme rek dañuy reculer taxaw seen temps yi looloo waral loolu di sant suñu borom euh, parce que aussi guy euh, gi euh, c'est une grande équipe dañoo teglante ñaari victoire te ñu tase ak moom ñun ñu jógee ci défaite am victoire amaat victoire je vois kon xale yi xam nañ leen di xaar donc damay ñaxar xale rek. ñu gën préparé wu pour ñu euh, préparé pour kii beneen beneen phase. match bu métti la yombul woon euh, nga dugal benn but mën nañ xam lan moo déterminant ci bi. bon euh, li gën a déterminant rek mu nekk l'engagement parce que on savait que but gi c'est une équipe joueuse léegi problème moo doon il fallait qu'on mette les ballons à terre et qu'on joue au niveau des intervalles donc on a pu marquer par corner donc le but est atteint incha allah. encore suñu borom rek xam naa ne aussi huitième de finale yi ñu yomb parce donc dañuy préparé wu euh, xaar kan moo nekk suñu adversaire pour ñu mun a xam bon bi ñu tere ñu continuer entraînement yi mais dinañ xam kan moo nekk suñu adversaire pour ñu pour mën a waaw li nga xam ne moom moo nekk li ñu bëgg bu fekkee yàlla may ñu ko parce que itam bëggum daaw ma nekkoon participation bu njëkk dem ba quart de finale donc bu ñëwaatee dañuy wax ne ne xam am na tuuti expérience par rapport li nga xam ne moom la amoon daaw donc kon warul def lu yées ci mu nekkoon donc dañuy ñaan yàlla bu gàttee ba gàtt ñu dem ba 2030 waaye jël ko.